شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه bismillaahi rahmaani rahiim ñu dellu si waat ci seen émission njukkal sëriñ bi ñu koy def ci wayi wolof di ci tagg sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bismillahi rahmaani rahim ñadaa sàkku sam xasal jekki nañ nde xam nañ ne sam amul menn réew ñadaa sàkku sam kem xasal nañ nde xam nañ ne sam amul menn réew ñabur yàlla may ngëm ñu nangub dogal nangul nañ la sak pal te nañ la wiiw ña daa tagg yonent ca baawat jotuñ sa fukkeelu àndaar ya sàkkaa ñi teew labur yàlla dencam ci ruuxuk yonent dangaa donn loolee yoroo cër bu néew dangay waayu yonent ca suuf ca kaw ba tey peyi diiwaan sa tur waa fa siiw xadiimul mu xafaala góor ñey sagoo ña dem njëkk sëg ñëw ne nañ la siiw dangaa jël cërub pépp jël nag péfét lii lee tax ñu lay soow dangaa gàddu coow ci coow sax lañuy ñuy yem ñadaa ma bow wedam nañ ku daa matt faf nañ ko yeew sanoon yépp sooy nañ ba seen lépp fay murit yaa ngi jooruy xasiida ak géew géwél yaa ngi lay way tégéeri ñaa ngi way wayaa kon bi suukar nga seen këli soow sëriñ Bàmba laay way di sàllaw tagam selewtil ma man baas ba bis bañ ma yeew sëriñ Bàmba yaa tax nu gëm yàlla mii dogoon yow ñu juuyoo yeneen dal di dogoon yow nu sàggan ci julleeg ci koor dogoon yow nu sàggan ci aj ngën ci réew dogoon yow ñu sàlloo nelaw bay xarañ te def faw sun lal yi muy tàddi niiw dogoon yow ñu sàlloo nelaw bay xaram te def sun lal yi muy tàddi niiw dangaa fekk nun ñii nu am raggi xol nga faj xol yi weexal ko ba mel ni meew ndaxam réew yi bii daan ya xam nañ la tey sërif yaa ngi ñëw fii ba woo seeni réew ku lay dëddu tey jii xolam gimmiwul ku muus day ku kay dalay seeru ñëw naa la ŋeew ku lay dëddu tey jii xolam jimmiwul ku muus seeru ñëw naa la ŋeew ba woo lëf ci géeju ngëneel ak njariñ ndawal gaa ngi ñëw leen bu leen jiima joow ndawal laa ngi ñëw leen bu leen jiima joow ña doon soobu faf kaaya tey perte nañ ña dem lab ca seen ñoñ gisuñ seeni néew leget yaa ngi yow leget yaa ngi yow daam sarax mag ndawal ndeyaa may ña da xaar sa ndën yéeg a biiw te yaa tuuxuloo yëb rafaateek yëb rafaal sëriñ ndaam ba ñuy xonti géew ña daa sakku sam kem dugaa ñi ma lim ne xam nañ ne sam kem amul menn réew ma far julli man baas alal muntaqa te daam dolli mag may gu saay kim ne siiw allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim fi kulli shahrin wa fi safar hamani أباح الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه